chers internautes ñoo ngi leen di nuyu leen dalal tey ji ñoo ngi jàkkaaloo ak euh, Momar Ndao mi nga xam ne moom moo jiite seen waaye aussi moom moo jiite kuréel bu bees bi ñuy wax commission nationale de régulation des loyers ñu tuddee ko CONAREL donc Momar ndaw ñoo ngi lay nuyu la bàyyi nga nuyoo ak internet ne Sénégal yi waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñi seetaan seen site yi ci biir réew mi ak bitim réew yëpp maa ngi leen di nuyu. a xam rek kuréel bi nga jiitee muy CONOREL ñu bëggoon a xam lan mooy taxawaayam dëgg dëgg dëgg ci wàllu loyer maanaam quelle est sa mission globale. waaw jërëjëf xam ngeen ne mbirum loyer depuis 2006 dafa am jafe-jafe ci Sénégal euh, ñun ñu demandé woon état bi ne na wàññi loyer bi euh, bi coow li bare euh, député yi sax jël nañ affaire bi en charge ba créer benn commission d'enquête parlementaire bu professeur Iba Der Thiam yal na ko yàlla yërëm jiite woon. Mhm. bañ defee loolu ba pare. Mhm. à l'époque état bi ne moom ni mu gisee mooy nañ yokk logement yi suñu yokkee logement yi njëgi dina wàcc. Mhm. mais malheureusement. yokk bi ñu yokk logement yi dafa faible par rapport ak nit ñi demandé. Mhm. ndax demande bi yemuloon ci Sénégal kese. Mhm. ndax waa euh, sous région bi seen dëkk dafa am instabilité ñu dawale seen i ñooñ. Mhm. ñëw fii ci biir réew mi. Euh, te ñoom am nañ xaalis bu ñu mun a fayee loolu bokk na ci li taxoon njëg yi continuer yeeg. 2014 ñu proposé waat état bi ne ko na wàññi prix yi. si lañ wàññi prix yi en 2014. mais ba ñu wàññi pris yi ñu gis ne commencement bi respecté woon nañ ko waaye bi ñu demee ba ci digg bi. Mhm. bailleur yi ut ay lay pour fexe ba nuñ ci génnee. Mhm. loolu nag moo waral euh, affaire bi am ñu bari ñoo xam ne. Mhm. ba ñu génnee bëgg a duggaat yokkal nañ leen mu am daal ay ñoo xam ne respecté wuñ. léegi nag bi ñu jàngatee loolu yëpp. ñu ne kon léegi nañ proposé état. mu def li nga xam ne moom la ñu waxoon ne moo manqué mooy suivi. suivi bi. ndax état texte yi wax affaire loi yëpp dafa waxoon ne ministère bi nga xam ne moo yore domaine impôt yi domaine ak mooy mm-hmm. finance ak yooyu. Mm-hmm. ñoom ñoo ko waroon a. Mm-hmm. lijjanti mais ñooñu dañoo croiser woon les bras. léegi nag ñu nekkoon ñu proposé waat président ne ko léegi nañ taxawal kuréel goo xam ne day am suivi. kuréel gi nga xam ne suba midi ngoon loolu rek lay liggéey. donc depuis un an. ñu ngi ciy liggéey. pour nu ñuy taxawalee kuréel gi ak yan matuwaay la ñu war a jël. Mm-hmm. pour li nga xamante ne bi mooy bailleurs yeeg mm-hmm. euh, agence immobilière yi ñu xam lan la loi yi wax parce que gis nañ ne agence immobilière yi ñu ci bari ñoo war a dimbale bailleurs yi te xamuñ li loi yi wax mm-hmm. bailleurs yu ci bari tam xamuñ li loi yi wax bu ko defee ñu def ñaari texte benn texte pour nu ñuy réglementer euh, profession wu bailleurs yi ak benn texte boo xam ni dañuy taxawal kuréel goo xam ne moom la ñuy wax CONAREL muy commission nationale de régulation des baux kuréel googu nag bi ñu ko taxawalee Euh, yàlla def président óolu ma teg ma fa noonu la demee ndax euh, liggéey la boo xam ne lu luñ commencé depuis 2006 la euh, proposition yi de bees yi fi am yëpp ñun ñoo ko proposé woon mu nekk loo xam ne ci luñ ci liggéey la commission bi nga xam ne moo nekkoon commission bi bi président taxawaloon en 2014. Mhm. pour ñu wàññi njëg mhm. eh, ci lañ bokkoon. Mhm. nekkoon rapporteur bi. texte yeeg yooyu yëpp ñoo ko bindoon. ñoo ko bindoon d'accord donc looloo tax président ne comme lii yaa nañ ciy liggéey depuis des années. Eh, jiital commission bi. noonu la demee. léegi mission commission boobu nag mission am. mooy li nga xam ne lépp loo xam ne rëq-rëq la. loo xam ne dafa nekk ci application texte yi nga xam ne mooy texte sur le loyer. Mhm. parce que texte sur le loyer suñ koy wax nit ñi dañuy foog ne bees bi kese la. lu mhm. bees bi kese. Mhm. mais ni ñuy fixé loyer yooyu yëpp dafa bari ay textes yoo xam ne. gis nañ ne nit ñi respecté wuñ ko. ñàkk respecté textes yooyu nag moo indi jafe-jafe yi nga xam ne moom la nit ñi di di di dund. d'accord euh, léegi nag première mission bi mooy fexe ba tous les textes sur sur le loyer. ñu respecté ko. bees ñu respecté ko. suñ gisee ne am na taxi yu bees yu ñu war a jël yu jëm ci location yeeg ci ñoomin seen ñu proposer taxi yooyu su état bi waree def taxe lu jëm ci lu jege loyer logement yooyu daf ñuy consulter pour que ñun tam ñu ne ko defee ko nii defee ko nii defee ko nii ñu ne itam dañ day def lépp loo xam ne war nañ ko mën a def pour faciliter nit ñi jot ci location yi ndax xam nga nit ñi bu faciliter jot ci location yi par exemple su fekkee ne defar nañ ay immeuble yoo xam ne euh, état moo koy luyee xam nga day yomb loolu dina tax ñi nga xam ne euh, seen loxo jotul seen ginnaaw ñu mën a am ay logement euh, et cetera et cetera et cetera donc lépp loo xam ne daal mën nañ ko def ba yombal nit ñi ñu jot ci logement yi bokk na ci suñ mission bokk na ci suñ mission tam bu jafe-jafe amee diggante bailleur ak locataire nga gis ne bailleur boo xam ne locataire bi normalul bu ñëwee ñu jaarale leen ñu su fekkee ne bailleur bi moo normalul bu ñëwee ñu jaarale leen donc daal ñun daal li nga xam ne mooy suñu rôle mooy lépp loo xam ne moom la yoon wax ñu appliqué ko. d'accord jërëjëf donc foofu sax la ñuy rebondiraate ndax gis nañ ne am na loi bi dugg fan yi loi bi nii dafa indi la baisse des mm-hmm. léegi ñu bëggoon xam tey jii maanaam euh, locataire ba nga xam ne dafa am problème ak bailleuram maanaam ci wàllu euh, baisse des boobu noonu kooku noonu lan la ko yoon may. Mm-hmm. ngir maanaam mu préserver ses droits. waaw dafa am benn loi boo xam ne. président Abdou Diouf moo ko jëloon muy 81 21 du 25 juin 81 moo ne képp koo xam ne respecté woo prix loyer. Mhm. dinañ la daan ñaari weeri kaso. ba mhm. juróom benn weeri kaso. Mhm. wala am amende vingt mille francs ba un million cinq cent mille. kon képp koo xam ne loi bees bi respecté woo ko. am na loi bu taxaw. bu wax ne. lii lañ la war a daan. d'accord kon moo tax maa ngi oo bayeer yi ñu xam. lan la loi wax. ndax ku xam li loi wax di nga ko mën a respecté. donc su fekkee da ngaa dem ci sa bailleur nga fay ko mu ne du jël. Mm-hmm. am na plusieurs façons yoo mun a def mën nga ko yóbbu directement police wala gendarmerie. Mm-hmm. parce que police ak gendarmerie. Mm-hmm. loi 81 21 daf leen jox compétence pour que ñu jël kooku yóbbu ko si procureur. d'accord da koy porter plainte. voilà danga koy porter plainte. bu fekkee bëggoo ko porter plainte. parce que peut-être bon am na yoo xam ne bëggoo ko def. à ce mun ngaa jël xaalis bi nga déposer ko caisse de dépôt et consignation. Mhm. pour nga déposer ko fa ñaari façon la benn bi mooy nga jox ko huissier. Mhm. huissier bi yóbbu ko caisse de dépôt. Mhm. defaral la benn papier. boo xam ne day wane ne fay nga waa ji même bu jëlul fay nga ko. beneen bi mooy nga jël xaalis bi nga dem tribunal yóbbu jënd timbre deux mille francs. tribunal autorisé la nga yóbbu xaalis bi caisse de dépôt. dans tous les deux cas mooy ne yow. fay nga waa ji. du mun a lot jot xaalis bi. parce que mu nga caisse de dépôt. xam nga kon moom am na problème moom bailleur bi. d'accord mënut wax ne feyoo ko. Mhm. te xaalis baa nga caisse de dépôt. léegi te moom ci boppam du la mun a génnee. parce que mhm. génneel sama kër loolu amut fenn. d'accord juge kese moo mun a génne nit mhm. waaw moom du jot xaalis te du la mun a génne. d'accord parce que pour mu génnee la il faut mu dem ci juge. Mhm. te bu demee ci juge bi juge bi ne ko kaay yow lañ doon xaar parce que yaa topp yaa respecté wul li yoon wax. donc loolu c'est très mhm, bi mooy bu fekkee ne yooyu yëpp dafa compliqué ak yow mun ko d'argent. soo ko yónnee transfert d'argent yow di nga am preuve ne fay nga ko. di nga am preuve ne fay nga ko d'accord. waaw bu boobaa mënuloo la dara. parce que lim la mun a génnee mooy ne peut yow. voilà feyoo ko. feyoo mhm. parce que pour affaire yi génnee ci ay euh, damaa bugg a jëlaat sama kër pour dëkk ci wala yooyu. Mhm. c' est très compliqué. ku mhm. dëkk deux mille euh, ku dëkk par exemple dugg premier janvier deux mille vingt trois. premier janvier deux mille vingt six. nga koy doog a mun a génnee. te danga ko pour loolu mun a nekk da nga koy jox préavis six mois avant date boobu. soo toogee ba mu des cinq mois il faut nga xaar premier janvier deux mille vingt neuf. Mm-hmm. maanaam par trois ans trois ans trois ans kese. Mm-hmm. soo nekkul ci trois ans mënoo demander. Mm-hmm. pour nga jox ko congé. te pour nga demander pour jox ko congé day fekk ne yow yaay ciy dëkk. wala sa doom. wala sa doomu soxna. wala sa wayjuru soxna wala sa wayjur yow. mënoo génnee nit sax pour dugal ki nga xam ne moom mooy sa frère. boo bokkal ndey ak baay beneen bi mooy. pour loolu mën a nekk il faut que nga joxe turuwaa ji santam filiation am date de yooyu yëpp. Mm-hmm. te loolu boo ko defee soo génnee waa ji. Mm-hmm. ci kaw ne danga fay dëkk. Mm-hmm. nga jaar fekk ne yëpp ah, xaar nga trois ans yeeg yooyu yëpp ba affaire yëpp jaar yoon. bu génnee yow nga dëkk ca kër ga wala sa doom dëkk ci wala ki nga xam ne moom mooy sa soxna. su fa dëkkee mooy de deux ans génn. di nga rembourser ki nga génnee. deux millions quatre cent mille wala quatre millions huit cent mille su fekkee cent mille lay fay wala bu fekkee deux cent mille lay vingt quatre mois de loyer nga koy fay par force mm-hmm. bu fekkee ne par exemple dangaa ngaa génnee waa ji loué keneen mm-hmm. da ko fay quatre millions huit cent mille bu dee ne deux cent mille la doon fay kon d'abord génnee bi mënoo mm-hmm. koo génnee da ngay ñaan juge bi ne ko damaa bëgg dëkk ci kër gi te loolu il faut nga xaar par trois ans trois ans lu compliqué la kon tey jii koo xam ne fay nga ko mu ne du appliquer. Mhm. yow bu ci boole wax. Mhm. li gën a yomb yónnee ko ko rek par euh, transfert d'argent nga nga am sa preuve. d'accord moom moom booy benn. Mhm. kon beneen bi nga xam ne ci la wax ne comme moo xam ne gis nañ ñu bëgg di wax damay defar sama kër. damay defar sama kër mënoo cee génnee nit. benn génnee la la juge di def. mooy rajaxe kër tabaxaat ko kër gu ñu rajaxewul tabaxaat ko. mënuñoo demander juge bi ne pour mu génn. parce que damay liggéey def ay travaux. ay karook ay karab karab yooyu am. te boo rajaxee kër gi. pour defaraat ko. Mhm. su paree ka fa nekkoon. Mhm. Euh, locataire bi mooy prioritaire. mooy soo ko ko joxul ñu daanaat la 4 millions cent mille wala 2 millions 400 mille. kon mhm. locataire bi. il est très protégé. par ay loi yoo xam ne ñu ngi fi woon depuis yenn yi depuis Senghor yenn yi depuis Abdou Diouf. du loi yu bees. d' accord léegi gis nañu tamit dafa mel ni. Euh, comme li nga wax ni le locataire est très protégé mais c'est comme si que le bailleur ñoom ils sont en de contourner la loi avec des subtilités d'abord am na ci ka nga xam ne daf ma ne man euh, dama luye dama dama luye ci benn kër depuis 2015 mais bailleur bi daf ma ne baisse bi du ma ko appliquer parce que man appliqué woon naa la baisse de 2014 waaw léegi donc kooku noonu maanaam lan mooy euh, yan lan la ko yoon may. voilà léegi ki nga xam ne yow mille 2014 yaa nga fa dëkkoon. Mm-hmm. doon fay 100000. Mm-hmm. loi 2014 génn. Mm-hmm. ngay fay 71000. su fekkee ba tey jii. yaa ngi fay 71000 duñ la wàññil. parce que kon double wàññi lay doon. d'accord. mais waa ji bu taxawee rek ne non waan wàññi woon naa 2014. te yow yow wàññilu la woon. amul preuve bu wane ne wàññi woon na 2014. du day wàññi. day wàññi léegi amit aussi ña nga xam ne ñoom maanaam dañuy nangu ne dañuy appliquer la baisse du loyer mais par contre dañuy wax ne locataire bi su ma ko appliquer sa contrat un an lay jeex un an bi su jeexee da ngay génn. loolu tam. mënut mhm. a nekk. Mhm. ndax mbirum loyer. Mhm. dafa am sart bu tegu ci seen kaw ñoom ñëpp bu wax c'est d'ordre public. maanaam même boo signé ak nit ki un an. loolu valable signature contrat location. Mhm. boo xam ne usage d'habitation la ñaari façon kese moo am. Mhm. durée indéterminée maanaam amul ab. Mhm. ak durée déterminée trois ans renouvelable par tacite reconduction. d'accord maanaam su la signaloo un an ne la dans un an nga génn tamit. Mhm. bu un jeexee du la mun a génne. valable d'accord parce que valable. Mhm. parce que donc trois ans kese la comptable. la xam wala kii. Mhm. wala wala de indéterminé. d'accord kon loolu tam waxi caaxaan. waxi caaxaan nañu wàññi. waaw waaye mais léegi tamit. bailleur bu nga xamante ji par exemple mu ne d'accord mu xaar ba trois ans yi. mot. mooy léegi abal ma sama kër. mu delloowaat au même prix kooku ci boppam. supposons koo xam ne fay ko mu génne ko parce que dem na ci juge bi juge bi ne na génn wala koo xam ne toog na trois ans mu demandé kooku génn ba ba nga xam ne léegi li mu doon loué libre na mhm. yoon nee na amul droit loué ko te dafa jaarewu ko surface corrigée hmm. maanaam nit ki maanaam ñi xamul surface corrigée mooy la waaw loi dafa wax ne képp kuy loué kër mhm. amoo droit fixé ko prix bi lu may man yoon ni ma waxee ne noonu nga ko war a fixé d'accord surface corrigée. Mhm. benn calcul la boo xam ne. Mhm. day seet ban zone la kër ga nekk. Mhm. ndax Géejawaay la ndax pikin la ndax cees la. kon terrain ba ñaata lañ ko war a calculer valeur locative bu terrain bi. tabaxin bi naka lañ ko tabaxee. ndax tabax bi parce que néeg boo xam ne moo ëpp lumière moo gën a seer néeg bu xam ne amul lumière. néeg boo xam ne boo ubbee sa bunt gis gis géej moo gën a seer néeg boo xam ne. boo ubbee sa buntu beneen kër ngay gis. d'accord donc loolu yëpp la ñuy jël ak bépp investissement boo xam ne bailleur bi def na ko ci kër ga. Mhm. moo xam kër gu la gën a ëpp robinet moo gën a gën a cher. Mhm. kër gu am chauffe-eau moo gën a cher kër gu mhm. amul chauffe-eau. kër goo xam ne ci suuf karo yi dër la. moo gën a yomb kër goo xam ne ci suuf karo yi. karo la surface corrigée ñan ñoo koy ñan ñoo koy def. léegi nag surface corrigée. dafa compliqué. moo tax dañ koy def expert immobilier mooy def. surface corrigée d'accord léegi nag expert immobilier surface corrigée bi su la ko defalee yow bailleur bi. Mhm. pour nga mun koo nga wax ni def nga surface corrigée. Mhm. balaa waajee dugg. Mhm. danga koy jox photocopie bi. loolu loolu waa wax loi nee na soo ko joxul photocopie bi ci moment boobu muy dugg. dinañ la alamaan alamaan boo xam ne déjà diggante vingt mille. ba deux cent mille la. parce que yaa ngi ci infraction. d'accord kon surface corrigée képp koo xam ne da ngay duggaat ci kër. Mhm. surface corrigée lañ la war a jox. kon fu mu nekk nii képp ki nga xamante ji war ngaa luyee benn kër war a ñëw toxu si. voilà li bailleur war a njëkk a def mooy jox la surface corrigée. su la ko joxul rek mi ngi en infraction. en infraction te heure bu la neexee. Mhm. yow yow mi dëkk ca kër ga. Mhm. nga ne man jàpp naa ne kii li ma luyee dafa seer. damay demander. ñu calculer waat kër gi pour xool ndax li may leen normal na d'accord su fekkee def nga ko mhm. nga ñëw commission ñu calculer la mhm. gis ne waa ji par exemple mettons yaa ngi waroon a fay cent mille mhm. yow dëkk nga ci kër ga bi gis ne cent yaa ngi waroon a fay cent mi ngi lay fayeeku cent cinquante mille mais yow cent mille nga waroon a fay cinquante mille yi teg ci kaw depuis cinq dala koy dajale remboursé la ko léegi loolu kam moo koy décider loi moo ko wax. Hmm, d'accord soo ñëwee commission ñun loi rek la ñuy appliquer. d'accord li loi wax bailleur bi su bañee ne. bailleur bi su bañee dañ koy tëj prison deux à mois de prison. d'accord comprendre nga li ma la wax. Hmm, hmm, loolu loi la. loi bu fi nekk la. d'accord boo xam ne du ñun ñoo ko bind lu lu fi nekkoon depuis temps de Abdou Diouf. d'accord donc locataire bu nekk su ko neexee moom su ci kër gi su ko neexee mu toog ba ci yàgg ne damay dem. damay ñëw commission ñu xoolal ma. ñu xoolal ma commission ko mën a defee wala mu dem. jël expert wala mu dem tribunal directement. d' accord d' accord bu demee tribunal directement. Mhm. tribunal day jël benn expert. Mhm, su jëlee expert léegi expert bi day calculer waat kër gi. Mhm. su calculate kër gi gis ne li ko waa ji di loué. moo ëpp lim ko waroon a loué. waa jooju doon ko loué lu ëpp loolu dañ koy tëj deux à six mois de prison. d'accord wala ñu alamaan ko vingt mille à un million cinq cent mille. Mhm. ba pare te lim ci teg yëpp da koy rembourser. d'accord loolu leer na kon sëñ bu ñëw xam actuellement nii daanaka fan yaa ngi génn wax ne lu toll quatre cent plaintes jot ngeen ko. Mhm. Mhm. actuellement nii daanaka war na évoluer volume de contentieux bi instant nii fan la toll. waaw yi ñu mujjee jot ci ay ñu woote. ay cinq cent trente six actuellement jot nañ ñoo xam ne dañoo woote. mais ñi woote ñëpp. Mhm. nekkul ne ay plainte la. Mhm. am na trois cent cinquante cinq yoo xam ne ñoom dañ ne ah naka lay demee. Mhm. kañ lay commencé. parce que xam nga am na ay débat ci ay est-ce que ñi ñi ci fin du mois bi lay démarrer wala fin du mois de mars. donc question yu mel noonu. laaj nañ ko renseignement yi parce que nit ñu bari. bokkuñ date yi ñuy fay am na ñoo xam ne dañuy tëdd ba pare fay am ñoo xam ne ñu ngi fay avant ñuy tëdd. Mhm. mais li am solo. Mhm. ci question comme yu mel noonu comme question boobu. Mhm. mooy ne mois de mars la ñu wàññi. képp kuy fay mois de mars rek da ngay wàññi. d'accord mais bu fekkee ne yow actuellement mois de février ngay wàññi fay doo wàññi. d'accord parce que mois de mars la ñu wàññi. donc loolu mooy question yi. am na ñoo xam ne nag am na dix huit pour cent. ñoo xam ne dañoo am jafe-jafe ak seen bailleur. parce que bailleur bi day wax ay. wàññi woon naa. Mhm. te mënut a prouver ne wàññi woon na. Mhm. ak yu mel noonu. Mhm. yéen su boobaa lan moo seen taxawaay ci cas yooyu noonu. ñun dañuy wax li loi bi wax expliquer ko. suñ ko expliquer bu leeree si bopp bailleur bi rek. bailleur bi day d' accord. parce que ñu ci bari xamuñu woon lu loi wax. donc chaque jour bailleur yi dañuy saisir. par exemple am na ku ma saisir na ma léegi est-ce que ñi nga xam ne ay dix mille francs la ñuy fay dañuy wàññi ma ne ko waaw. parce que. ak ñoo xam dañu laa est-ce que région yi dañuy wàññi. yëpp dañuy saisir duñu laaj yooyu question mm-hmm. su ko defee ñu expliquer leen lan la yoon wax mm-hmm. et puis en général quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñi nga xam ne euh, xam nañ li yoon wax rek dañuy mm-hmm. appliquer yoon mais yéen est-ce que am ngeen pouvoir de contrainte à l'égard am nañ contre pouvoir de contrainte dafa am ñaari ñaari euh, approche benn approche bi mooy ñun mun nañ dafa am lu ñuy wax des euh, texte bi dafa wax ne c'est les les administrations dûment habilitées. Mhm. on fait partie de ces administrations dûment habilitées. Mhm, mhm. wala les officiers de police judiciaire. officier de police judiciaire mooy police gendarmerie. d'accord ñooñu ñëpp mën nañ def. ay ay PV yóbbu la ci procureur. d'accord donc c'est extrêmement important nit ñi xam loolu. d'accord d'accord. Euh, parce que loi moo wax ne ku deful lii lii lañ lay. loolu d'accord loolu moo tax.